Ah, non pas encore san <laughs> jour dafa gaaw trop pour euh, pour euh, pour que mbubbu président jot ko xam nga lu tax. Mhm. parce que xam nga être volontariste c'est très bien maanaam nga bëgg nga am yéene am na Madou Diabaté yàlla na ko yàlla yërëm chanteur la waykat la woon ne woon na bëgga dem taxut a mën a dem. Mhm. mën a dem mooy tax a dem. il ne suffit pas de vouloir. il faut pouvoir. Mhm. donc. ma jàpp ni bis boobu noonu ñu ko fal mu doon lu ko bett. ndax dafa xëy doon nit doon citoyen guddi jot ñu ne ko yaay njiit yaay président. Mm-hmm. mu xëy doon président ca la mu xëy xamu ci dara mënu ci dara matuku ko. Mm-hmm. parce que moom. li mu def ci politique yëpp depuis Pastef commencé 2014 jéego yim ci dox yëpp pour lan la woon. pour Ousmane Sonko falu. pour fal Ousmane Sonko. kon moom mësta am ambition falu. c'est vrai fi da koo bett. da koo bett te lu la bett mën la olof Ndiaye ko wax. Mhm. loolu mooy dëgg. mais on apprend l'exercice du pouvoir. oui exercice du pouvoir da nga koy jàng mais dafa y a des préalables. ah y a des préalables d'abord da nga koy bëgg. Mhm. ambition dafa baax ci nit. ça parce que li nga bëgg da ngay fexe niroog moom. Mhm. da ngay fexe mën ko. da nga ciy gëstu di ci dox ay jéego di dugg di génn di ko lijjanti. xëy na à l'exception d'Abdou Diouf tous les présidents qu'on a eu ici au Sénégal dañ ko xeex ba ba jot ci. oui à l'exception bien bien même Macky Sall. bi muy doon Macky Sall bi muy nekk président da ko bett. Mhm. mais li mu tergiversé pendant dix ans yëpp lan moo ko indi daf ko bett. dans ses rêves les plus fous il n'aurait pas rêvé de gagner ces élections là en 2012 mhm. en 2012. à plus forte raison Diomaye donc. en plus à pour plus forte raison Diomaye